Baye Modou Fall di Boy Djiné mi rëccoon kaso jàpp nañu ko ña ngi ko jàppee ca Tambacounda Tamba musa Omar Gueye maa ngi lay nuyu. Mouhamadou Mohamed Ndiaye ñu ngi lay fay di nuyu mbokk auditeurs yëpp. ana booy Djiné Baye modu Fall. Baye Modou Fall dugg si na léegi léegi ci comme légion gendarmerie bi nekk ci rond point gouvernance bi nekk ci Tambacounda. Euh, booy Djiné nag daanaka bi muy wàcc ci oto bi nga xam ni ñoom comme légion David la Mané ak ñoom ñoo ko seq lenn la leen wax. j'ai toujours combattu l'injustice je l'ai toujours dit wax yooyu daal la nekk di répété bu ñu jël ko daal di koy taxañ dugal ko ci biir euh, comme légion bi ci biir fi mu nekk nii nag euh, moom biñ ko jàppee jàppale nañu ñeneen ñett ñu ànd ak moom di fàttali euh, Modou Fall booy jinne biñ koy jàpp ci Tambacounda bañ ko defee localisation dañ ko seetlu woon moom mi ngi nekkoon ci kaw benn moto TVS bu ñuul moto bi d'ailleurs mi ngi ci gannaaw benn Land Cruiser bu ñu aj ni bu noir la ñu nii dafa nekkoon ci yoon doon wut pexe pour dem fi nga xam ni mooy ci Maroc moom nag ginnaaw ay pexeem saa su ne bu koy lal daf ciy def euh, stratégie ak intelligence moo tax dafa jiitlante woon ak benn oto oto boobu nag ñett ci ay ñoñam jàpp nañ leen euh, moom nag mu nekk ci benn moto moto bu mag la nag boo ko seetloo Euh, mun daal di topp seen ginnaaw bi nga xamante ne nag seetlu na bi ñuy dugg Missirah mu xam ni euh, ñooñu ñu ngi leen di jàpp diggante ñooñu ak gendarme yi ci nag la daal di taxaw jël yoonu suuf bi pour daw waaye nag euh, mujj ca am ndam ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci brigade routière bi nekk ci Tambacounda jiite ko Silla ak ñi nga xam ne daal de façon globale mooy waa gendarmerie nationale tey ji daal dinañu tegaat loxo ki nga xam ni moom mooy euh, fugitif bi gën a siiw ci Sénégal muy Boy Djiné Modou Fall ci jamono ji daal bi muy dugg kàddu yi mu wax rafal ko ci taskati xibaar lool la wax de toujours combattre l'injustice di partout loolu daal mooy fi mu nekk nii li gën a fes mooy li mu bëgg mooy nañ ko àppal bis bi nga xam ne dañ koy war a jugé buñ koy jàpp ñu jàpp ko moo xam ñaata lay tëdd buñ koy bàyyi ñu bàyyi ko comme légion David Kogila Mané nag nee na ñu may ka ak six mille mu daal di dugg bu génnee dina def waxtaan feggoo ak taskati xibaar yi daanaka mbokki taskati xibaar yëpp a ngi fii askan wi wër comme légion bi di seetaan lu jëm ci wàllu booy jinne ñoo ngi lay xaar xaar ko moom it euh, kilifa ak gendarmerie googe ngir xibaar danañ ko dégtal suñu auditeur jëm ci xibaar bi ñeel euh, arestation bu évadé bii di booy Djiné jàpp nañu ko ñu ngi ko jàppee ca Missirah ca Tambacounda bàyyeekoo Tambacounda ñëw fii ci.